شر شفار الذي Seexinaa Seex mooy maami Salimu yaay dara doomu Seex Taalibe doomu Seex Abdu Sidi doomu Seex Muhammad Al mwen Bye. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Yeah. Rio Cheikh Saad dafa am lu may ñaan rek nga may ko benn séeréer. فكانوا في غياهب الجهل أضواء كالمقابيس وفي مهامه الضلال أعلاما وقماميس والصلاة والسلام هما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي استفض بفيض مدده كل راهب وقصيص وأصحابه هجاة البرانيس وعلى أتباعهم الذين قاصوا وصبروا أغوار القلوب والمقاييس فكانوا له عيونا وجواسيس وإخوانا ونواميس موكي جلوتي موكي تالبي نيغلين دي نيو اسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيجلي دينو نيو إسلام مي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي. ديجي لتنو بيجي أبي واقف سيجنا الحمد. يوم نيار قرآن نيجلي ديجل تبنيجلي ديتو واقف سيجنا الحمد. شيخنا. jërëjëf waaw Cheikh Taalib bi ne ma kenn déglul moom mi may déglu te doy na yéen ñi nga leen farata la comme ni ko ak woor génne asakaat dem Makka doonee farata yow waa kër Sidina Muhammad yéen ñi nga xam ne imam Shafi ne buñ vérifié sama xol dañ ci fekk ñaari rëdd yoo xam ne xaw ku ko rëdd yéen waa kër siij naa xam ñu ne ko imam Shafi benn bi lan la mu ne xam-xam ak tawxid ñu ne ko imam Shafi bi ci des lan la mu ne bëgg yoon ci Yàlla Muhammad ak waa këram imam Shafi ne bu dee li may wax ay nar la yàlla rëbb na kuy nar ñu ne ko bindal mu ne law fattashu qalbi la alfaw shatarani khat khata bila katibin al ilm wa tawxidu fi janibi وحب أهل البيت في جانبي إن كنت فيما قلته كاذبا فلعنة الله على الكاذب waakar yonent bi yéen ñi nga xam ne Shaafi ne boo bëggee gis ku texe gisal ku bëgg waa kër Sidina Muhammad waaye booy wër ku torox gisal ku bañ waa kër Sidina Muhammad ñu ne ko bindal mu ne fala taadil bi ahlil bayti xalqan فأهل البيت هم أهل الصيادة فبعدهم من الإنسان حصر حقيقي وحبهم إبادة شيخ طالب بن إنجليزي دي لا زيادة لا جوخ واي دي نوي بو باخ باخ شيخ صاد دي نوي شيخ محمد فاضل دي نوي شيخ حضرامي دي نوي شيخ شيخ صاد Chérif niñ ko waxee guddi yi màggat na ba nopp te ndaanaan yaa ngi nii toog waaye yow say bis bu barewul ndaanaan ku ñëw laajte lu xew comme guddi na nag te damaa yéex a jot ci dépense bi taabul yaay ngoone rek laa yem guddi na ci dépense bi taabal yaay rek laa yem xaar ñu dugg ci fa xool ba xam li ñuy togg dana baax xam du baax cheikh na comme guddi na damaa jëm ci ki nga xam ne moo nu indil bi gën ci ñun ndax moom rek mën a indi cadeau ba ngir njàmbaaram jaamu yàllaam ragal yàllaam wéetal yàlla damaa jëm ci ki nga xam ne moom rek moo mas a taxaw ne sama res toj na ci bëgg yàlla damaa jëm ci ki nga xam ne 99 doom mu génn àdduna un an dellusiwaat amaat muy ëggul anwaar damaa jëm ji ki nga xam ne moo dàqoon a jaamu yàlla ci kaw nuy jaamu yàlla damaa jëm ci ki nga xam ne Cheikh Tourate ne duñ ko jëndee kenn duñ ko teg bàyyi ko jël keneen donte yàlla may na la ngeneel amoo ngeneel lu mel noonu gaa ñi ci xam nga xam nga ci kan laa jëm bàyyu Cheikh al Adarame ma ca xaw xam nga ci kan laa jëm bàyyu Cheikh Mouhamed Mal Ayni xam nga ci kan laa jëm bàyyu Cheikh Mouhamadul Hayba xam nga ci kan laa jëm bàyyu Cheikh Mouhamed Tapila Suufi gaa yi xam ngeen ci kan laa jëm bàyyu Cheikh na Cheikh Saad Abi mooy kan Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal Ibnu Mami Cheikh na Cheikh Touré ne bu la yàlla mayee ngëneel sa ngëneel dabul sunu ngëneel doon ci am nga ngëneel Cheikh na Cheikh Touré ne loo am jëlal bàyyi noog sunu baay bi nga xam ne bàyyi melul ne moom maa melul ne moom ñu ne ko may kan mu ne mooy Cheikh na Mouhamed Badal ñu ne ko bindal mu ne maa naala fadlan ka fadlina walaw fudila min majidin gayrana بل إننا فضلا إن بنو فاضل لا نبتغي بدلا به ولا يبتغي كلا بنا بدلا شيخنا الشيخ تراتني بو امي غيري جيكو بلا يالا ماي غيري دابونو ناخ ني نوي واكر شيخنا شيخ محمد بابا ابن مامين شيخنا شيخ صاحبو بيكو يالا بيندي تورم تي بان تي بيك ويروي bind ko ci kaw asamaan sànni ko góor yàlla ku ne ku jóg nga ku ne naafila nga fu ne ku ne woor nga fu ne ku ne génn nga asaka fu ne ku ne gaamu nga yàlla tée sa kaamil alquran ngir mën a indi sunu waa ji cheikh na cheikh sàkku waaye kenn rek a ko mën a jur ki nga xam ne lu jiitu muy jamono doon ne sul wara mooy sa maam cheikh na cheikh mohammed Mouhamed Badal sul wara min batni ummihi lbaras fi laylatil ahadi min chaabana kës ak ya xay sell maak sell maak sell maak sell maak cheikh na cheikh Saad bu ne waay waay ku dul kii mënoo maa jur cheikh na cheikh Mouhamed Ba moom rek ma mën a jur cheikh na cheikh Mouhamed Baba ñu ne ko cheikh na lan moo tax mu ne moo dàqoon a jaamu yàlla ci kaw suuf moom cheikh na Mouhamed Baba ñu ne ko naka la daan jaamoo yàlla mu ne demal ca xawaatim sama bàyyi cheikh na cheikh Mouhamed Baba ibnu Maamin diggante timis ak géey juróom fukki rakka diggante gee ba fajar téeméeri rakka ñeenti rakka yi dem sa maam cheikh na Mouhamed i wàcce alquranu karim ñeenti rakka yi dem wàcce alquranu karim muy téeméeri rakka di ñaar fukki kaamil ak juróom ñu ne ko moo la mën a jur mu ne waaw ndax moo dàqoon a jaamu yàlla ñu ne ko bindal mu ne yaa xabaza yaa xabaza daaru salaam بها الأمان والنجاة والسلام قبورها إمامهم قطب الأنام أكثرهم عبادة على الطواب baax na ñu ne ko fan mu ne sell na ñu ne ko fan kawe na ñu ne ko fan mu ne riis na ñu ne ko fan mu ne daaru salaam ñu ne ko lu am daaru salaam mu ne bihal amaanu wannajaatu wassalaam booy wër kóolute fekkal cheikh na cheikh mouhamed baadal fa mu ne booy wër texe àdduna ak ëllëg yowm alqiyaam fekkal cheikh na cheikh mouhamed baadal fa mu mooy booy wër jàmmi àdduna ak jàmmi ëllëg yowmal qiyaam fekkal cheikh na cheikh Mouhamed Babal ibnu Mamin fa mu ne xam nga lu tax. samaam cheikh na cheikh Sane bu dafa yebal ñaari taalibe yónni leen samaam cheikh na cheikh Mouhamed Babal ñu rëbëtal jëm xaw du commencé dengi dengi kii ma leen di yónni mooy kan. من ماي خط بلوى بالله لا ترجع في كل نائبة فالشيخ قطب الورى من زاره الربح لا تحزنا إنني أراكما أبدا ولا تخافا فلا يخاف من نجح قل انتيت واي واي بولين جاك تي بولين جاك لي مي نكو لان مو تاخ يو شيخنا شيخ صادو مو ني كي مين دي وار موي خطب الورا موي سما باي شيخنا شيخ محمد بادل كوكا زيار راو عدنا راو عليك يوم القيامه لا تحزنا انني اراكما ابدا ولا تخافا فلا يخاف من نجح جدي كيلومتر يو تك نيت تي ميل اك كيلومتر غاني ربتل ودي شيخنا محمد بادل انما من جيل خاودو تي دو كوتي بوتك غور guddeeg bëccëg suba ak ngoon bi ne jeex biir xawlu maamu Cheikh Taalib bi ak Cheikh al Baxay bi mu lusi bi Cheikh na Cheikh Mohamed Bada di leen xool ba simi yàgg mu ree ne leen billaahi Cheikh Saad bu wax na dëkk ñu ne ko lu mu wax mu ne neewoon na Nimzaat ba xaw du bëtam du tegiku ci yéen waaye wax na dëgg Nimzaat ba xaw du bëtu Cheikh na Cheikh Saad bu tegikuwul ci yéen fa Cheikh xutbul wala man zaaluhu rabiha Baba Ahmed ne بابا أحمد نين تضياء المستبين بالله الذي لا إله إلا هو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا من على عنقه وجميع أولياء هذه الأمة ما شن تحتهما فقلت أين من نال هذا الكرامة الذي لم ينله آخر غيره نين ما جيك ديك رك سيدنا محمد تنقم شيخ مامين مي ورا جور شيخ محمد بابا بابا أحمد نين ما يخلق نان واو lu tax seen xam Muhammad di tungoom Cheikh Maami ci doxam di dox góor yàlla yi toog seen suufu tànk kenn mënut a yéeg Cheikh Maami rek ca kaw ne na avant may xalaat bi jekk ma jékki-jékki rek am lu may tontu ca kaw naan mi ngi jëlee karaama bi te leer gi nga xam ne moo nekk ci ndiggam muy Cheikh na Cheikh Mouhamed Babal te gëneegul àdduna lii tax Cheikh Maami jël Cheikh na Cheikh jël lii tax yonent Yàlla Mouhamed jël Cheikh Maami ci ngoom ko ci ñaari màggam kooku mooy sama keroog bi Cheikh na Cheikh Samb di wax baari safara yi nga xam ne am na ko su ëllëgee yowmal qiyaam bu ko génnee ñun ñëpp ñu mu mucc سمام شيخنا شيخ محمد بعد الملك شيخنا ني لي خمسة أطفي بها حر الحتيم الحاتمة المصطفى وعلي وابناؤهما والفاطمة وابن مامن الذي به الحتان عالمة والمصطفى قام له وقبلته فاطمة شيخنا يوم القيام هما ويسيدنا محمد قاني دم عجنا شيخنا يوم القيام هما ويسيدتنا فاطمة قاني دم عجنا شيخنا سيخ بني الذي يوم القيامة مو يسمى مام حسن الحسين قاني دم عجنا شيخنا الشيخ سعد بني الذي يوم القيامة مو يسمى مام سيدنا علي قاني دم عجنا ينقى الشيخنا كل جرو مير من تيجن تيجورني من تيجورني بكالو نيب مسول ينقى ما يكر من ما الشيخنا الشيخ محمد باطل ابن مامن ينقى بدر من وابن مامن الذي به الحيتان عالما والمصطفى قام له وقبله فاطمه Yeah. Cheikh Talib bi kii moo ñu indil sunu sens muy kan borom ñaari taaw yi Cheikh na Cheikh Sall ci karawam yëpp daan tudd yàlla Cheikh na Cheikh Sall à l'âge de 14 ans mbooleem karawam tudd yàlla Cheikh na Cheikh Sall. te cheikh na ne benn bu nekk turam yor di ko sàbbaale yàlla ba ca des yuru ko te ñun bu nee tur yàlla da quatre 99 la xoolal bopp cheikh na cheikh Sadbou lete ne ca karaw lépp a ngay sàbbaal yàlla ñu ne ko cheikh na fa nga yem mu ne déedéet alquran nee na wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lu yàlla bind kii ma ngay sabbal yàlla waaye sabbal ga muy sabbal yàlla xamu leen bon tur la yor mënu leen koo dégg Cheikh li garab yi sabbale yàlla xam naa ko li montagne yi sabbale yàlla xam naa ko li géej gi sabbale yàlla xam naa ko li jën yi sabbale yàlla xam naa ko li ndaay àll yi sabbale yàlla xam naa ko li malaaka yi sàbbaale yàlla xam naa ko li nit ñi sàbbaale yàlla xam naa ko li jinne yi sàbbaale yàlla xam naa ko ñu ne ko bindal mu ne billahi lazi la ilaha illa huwa ma faraqtu abi cheikhina alwalid cheikhna cheikh mohammad fadal ibnu mamin illa waqad manna allahu alayya kullu sha'ran min sha'ratihi yadhkuru allaha bi ismin min asma'i khasan biha wa shahadtu tasbih saa'ir al-akwaan may jàqali koog sama baay mbooleem luy sàbbal yàlla xam naa ne muy sàbbale yàlla man cheikh na cheikh sadbu à l'âge de 14 ans ida axada uudan yaabisan axdara ala yadayhi naisan sa maam rek moo am 14 ans bu fekkee bant bu woo ba fonox bu ko tegee loxo bant ba jël bi ca saa sa cheikh na cheikh sadbu برعة رجل مما يكل عشان بها نحو 100 الا دكة وزنا بن تيبو جيت سمام شيخنا سيخ سابو لك تيتي ميري نيب بدسفا على فا الا وزنا سمام شيخنا سيخ سابو اذا عظم على سربة من الماء روى بها ما شاء من الناس كتور زنا سمام شيخنا سيخ سابو بين كوب نخ منان تيتي ميري à l'âge de 14 ans ida adraa arbata adruin kassa biha ma saa min annas sa maam Cheikh na Cheikh Saad Bou à l'âge de 14 ans ñaari mètre ci tisi bu ko masaan a jël woddu ci téeméeri nit Cheikh na Cheikh Saad Bou ba man talamasa alayhi juziba fi hiinihi wa hajara dunia wa qarna suui min quranaihi ku jégbul ci moom ci fukki at ak ñeent bàyyi àdduna bàyyi waa àdduna dégmal baat bi nga xam ne mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi baat boobu la defaree cheikh Pathé Sarr ci la defaree cheikh Mouhamadou Jimbira ci la defaree cheikh Deccalaw ci la defaree cheikh Yirim Dumbaat ci la defaree cheikh Mouhamad Alex cheikh Saad bu Sow ci la defaree sunu maam cheikh Saad bu Diop ci baatu laa ilaha illallah pëli rëbëtal wuti cheikh na cheikh Saad bu ku ñëw bocc sa jaase sànni fee dëgmal cheikh na cheikh Saad Bou mu jël la taf la ci dënam nga daanu di wax laa ilaha illallah Bachirul Mbaari di ko xool ba si yàgg mu ne fa waa ajaban fulaanun taachat uquluhum li siimi buruqi man hawaaka lawaamiu atawka xayaara muctiina min addama lahum zabaratum taltazi wa mataami Bachir ne maa yéemu ñu ne ko Bachir lan moo la yéem mu ne xoolit pël yi seen xol réer na seen xel réer na ñu ne ko lan moo ko tax a réer mu ne taq bun taq ci cheikh na cheikh saadu abi amasmuhu siina an naxsin fa saara bihi man amma janibuhu bi saadi muttasima إن السعادة في دنيا وآخرة لمن بهذا السر يستدفي الأدمى قد غاب في قد غاب عالم أسرار قد غاب في عالم الأسرار ترسمه فسار فذلك صارت بها الفهم cheikh sënu li ne sa turu maam cheikh na cheikh sax bu amul gaaf amma ismuhu siina an naxsin fa saara bihi man amma janibuhu bi saadi mutasima sa turu maam amul gaaf moo tax boo taqee ci moom texe inna saadata fi dunya wa axiratin liman bi hada sirr yastadfiu al adama texe àdduna ak الا ëllëg القيامه qiyaam كتاب ki jàpp ci turu Cheikh قد غاب في عالم الاسرار تلصمه فسار فغلكة فحارت به الفهماء نيغو فما يمون من كان افضل رسل الله والده تقديمه بين ارباب هدى حتما ما من ولي له فتح ومعرفة الا ويرفع هذا مفرد الالم شيخ زنوليني ki nga xam yonent yonent bay mamam gidal ko farata la ne amul ben wuliw amul ben yonent amul ko amu yaay ak martaba te jakkor lu ak samaam cheikh na cheikh sa bu ne ko yawa yow duggal gànnaar ko ku mbokkal baay cheikh mohammed Mamoun da nga xol bas la mu ko ne saad anta saudi ibn al alkamali wa manar al huda wa shams shamsu zawal génnal fofu duggal ci cheikh sidil xeer lan la ko wax استاذ al ilahi الورى والسعد السعودي لأهل الأمم وسعد قديم لأهل المرام بمن الكريم لنيل المرام بايل كوك ديال البابا مطلع الغرب لاحا ويحك فيه سعد خير مزلاح سعد أبي سعد خير ينمى إلى كل سعد زاخر اليم أرياح النبي نال ما نال في الصباه ولما يعد عشر مدت له من سنه كل من قال إن للغوص شبها أو نذيرا في قطرنا أريني بايكوك جلال محمد الخضر معنوان لعمره لقد فاوت كل فقيه وكل أقي علم وكل نبي وطفت في شرق بلادي وغربها فلم أرى مثل شيخ سعد أبي أنا من جعاد العلم والحلم والأسرار ظهرهم لاحق ووجهي جينا الفوق ديال الشيخ قلا لا لا واخ مام وعاو جاء امير قالين اذا ركبوا اصبحوا بيه ما عمل سائن متاني وراحوا تسكت كلالا مس من طول سينها فقلت له اصبري بعد الكلال النجاح تراحين اما جئت سعدا فانه يحلو لديه طليعات المتع وراحوا بسعد ينال سعد للناس والمنى تتاح واسباب النجاح تتاح بايام شيخنا محمد بعضنا اما بعد فالى من ارجو من من الله الكريم أن يظهر على يدي عجائب الزمان من تربية وعرفان ويسعد به كثير من الإخوان من الوكان من السعد الإب والإخوان جن فوف دوغا سنغال ما خادم جاكتك لا 1872 من ما خادم 1872 من لان كي نيو تي نيو مو گن تي كوما سا كنيو كنيو موين سانغو جامونو كنيو كنيو واي كو جامن جاي سونو علال جاي سونو دام غير لان غير واي شيخ نصيح صابي ابي اتاك شيخ نصيح صابي ابي نيرو كو بيندال موني هل ان بدرو يتين بدا ان دوجا فينا ام ان سعد ابي جاموا فينا هذا الشريف الذي من نسل فاطمة من شاب والده الاسلام والدين هذا الشريف وهل يتاب من احد في كون السعد ابي انت يا سينا كلا لعمره وما الاعمار هينة على الورى انه قطب بدا فينا جن الفخر الشيخ جل وعلا الخير تشهد يوم البين جاء لنا قطب الوجود امام كل من جانا شيخ جل اني فرحت جميع الناس قد فرحوا قدوم سعد ابيه لله سبحانه شيخ جل حتى القصور كذا الاشجار قد فرحوا ثم الكلاب مع الكفر أفكار النصرانة جنة فوق سندمني ردتنا على من سيده قبل الدار سندمني وفي حين تسليما ينوير الدار السلام على شيخ الشيوخ الذي له مقام رفيع وهو ليس يبارى السلام على سعد سعيد مبجل يكرم القاسي ومن كان جارا جن الفوق باي مود سلام عليكم هذه الشوق والبيتو خدم خت قدرا دونه المسك والبيتو تزيتم كفيتم على بيت رسولنا فمنكم حتى الخيرات ورست والسعد ولم تسألوا عجرا بتبليغ نعمة سوى الحب في القربى بزاك احتلال جدو وإلى لك عمر موجود شريف لن يدعنا لا يخمنا كما دعنا اليوم يا هنا يا صاحبو يا صاحبو يا صاحبو سلام عليك يا بدر البدور وقطب الأقطاب دوام الدهور وقطب الأقطاب دوام الدهور فأنت الولي والعبد الشكور يو يا الله يو يو شيخنا شيخ سعد وخاتم ملير الكجام نمكت أي نت السلام عليك يا من الخمن يا ويرو ويري تكن لجم تسان مسانجي مش شيخنا شيخ سعد يا من خمن يا خطب خطب لفك دمانو يا مدوك يا سانغو سانجي يا شيخ الشيخ صاحب يا شيخ الشيخ صاحب يا ولي يا جيتو غاني يا جام داي سانت يا الله جام نانغي سانت تي جيتو يا جيتو يا شيخ الشيخ صاحب يا رب الغني يا الله سبحانه وتعالى موي كي امتا موي ماي تا كين دوكا نان دوكا نيهي yàlla subhanahu wa moo am yërmande mooy jéggalaa kon bi suñu sëriñ billaahi lu ma sa xalaat yàlla defal ko sa saabu si bi xam naa fi lay ndax gaañaa eh, eh, gaañaa suñu ginnaaw muy ëmb suñu sëriñ billaahi lu sa ñaan wala mu xalaat ko ci xelam rek yàlla defal ko ko dafa nekk Maroc biir kër Cheikh Malang sama am ngan gi neex lool taalibe yi di way Cheikh Mal Ayni comme niñ toogee nii rek taalibe Cheikh Mal Ayni di way Cheikh Mal Ayni way neex lool gaa ñi jóg ku gën a neex baat ku gën a dégg arab jóg di way Cheikh Mal Ayni suñu sëriñ a ngi toog Cheikh na Cheikh Sarr ñoo bokk benn bàyyi muy Cheikh na Cheikh Mouhamed Babal Ibn Maalik am na ku ñu doon wax Mal Ayni wulu malayni wulu atiyib moy way cheikh malaini tin ko nan ko ma ul uyuni wa ma ma ul uyuni fahu bahrun hawaru tabun ma fawqa haru tabu ahya shari'ata min ba'di mamati ها شيخ مال malaini بس شيخ مال يرفض نفس الشيخ مال عيني مو من الشيخ الشيخ بعد اليابان فوف مرض mu nek marab mo fa jite mom la nit ñi xam Cheikh na Cheikh Saad bu fekk ko foofu ni mu génnee Cheikh na Cheikh Saad bu mu jëm fii noonu la génnee Cheikh man mu dem Maroc ca taalibu ya man ay ma jàkkaarloog sang bi mu may mu amul wente bu xoolee doom ji mu kon na may xool nee ma jàkk. Cheikh na. ak déglu waay ngir yàlla. Cheikh na. خير شيخ ملاي ني توك شيخنا شيخ صاد بو غاني جيت ني توك ديكو واي ملاي ني ولو عطيه ترندو شيخ ملاي ني دي واي شيخ ملاي ني ما نانكو ما اول عيون وما ماء العيون فهو بحر حوى رتب ما فوقها رتب أحيا الشريعة من بعد الممات فيه بنت له ولها ماء العيون أبو gaa ñi di way way ñuy neex Cheikh na Cheikh Saad bu toog fi mu toog rek parce que mu yàgg mu daan ne ah am na moom Moudou Seye bu fi nekkoon moo tax bu kenn du moom. comme ni xalaatee nii rek par exemple Cheikh Taalib bi Moudou daan bu fi nekkoon. bi Cheikh bu ne Amar Mor bu fi nekkoon fekk a Mor moom mu ngi diggante Kër Masène Ndiago. war gileem moom di wàññi jiineem gileem yi pour ñu naan ñeeñ nga mënoon ci diggante xeex ak xiib bi yàlla tënk Amar Modou Wulu Sëy ba te taalibe Cheikh na comme Cheikh na xalaat na ko ci xelam ak xalaatam dugalal ko ko biir Maroc. Amar Modou ne biir Maroc ci jataay bi fekk gaa ñuy way wàcce gul gileem nga de. لم تبصر العين من ماض ومن آتي شيئا ألذ لها من خادم آتي ليلة إلى وادي الرامي يعد له من التحيات حسان التحيات ومن سرور وترحيب وتهنئة ما لو تجسم أدراب السماوات رمت به ملأت أرجاؤها مطرا طيه لطيه ومومات لمومات من بعد ما زخنت شم الأنوف له من قطر شنقيت أرباب المكانات فحاذ كل مصون من زخائرهم حتى الجياب وملتف الحديحات حتى ألم بنا وهنا ينس به محي اللبانات من موت اللبانات سيخ ما عين الدقلين ويوم يومي بلغا كنت ندقل الموخلة قلنا بأجمعنا لما حللت بنا يا مرحبا ذات تبجيل وإسراف ألف وألف وآلاف ويتبعها من الترحب ألف ألف آلاف قلنا بأجمعنا لما حللت بنا يا مرحبا ذات تبكير وإسراف ألف وألف وآلاف ويتبعها من الترحب ألف ألف آلاف وين من ألا أيها الغوش مربي المكاشف من هو أنصر الحقيقة كاشف رماك بتسع جاهل غيب أمرها وقد يجعل الغيب بعيد المجانف كشفت عن تسع ستور بديهة وما كان عنها كاشف ستر كاشف فوضى عن المنكين فصرحت سنا سمس عنها حالك دج ناقف وقبل الذي يرميك بتسع سيد وأنت على مرضات ربك عاكف تراميك نطقا بالقرون أجلة وهل أنت من نطق الأجلة خائف أي شيخنا الظفر fii saxri asami te asrun ami saxru min habi zaazi o raajif ñu dajale àdd yee jox ko ne ko yaay kanat foo jóge mu ne man xaw ma fu ma jóge maa ngi jóge kër ma seen daal bi ma noppee xam fu ma ne mooy may wàññi samay giléem pour ñu ñëw naan xaw ma ma indi fii ñu dajale àddee jox ko mu war a wàññeeku ne man nu may def ba dem Cheikh na nag lu la indi woon a lay delloo bu nga ko ba ci ginnaaw kër gi mu bàyyi ko mu ne waat jëppaat biir kër ma seen moo tax ku jàpp ci moom raw sax bi bii sax wasilati si xusuyuqi sula toogaay bi yàgg na bu ñu jógee taxaw yàlla nañ bokk ak Cheikh na Cheikh Saad bu jataay ëllëg yow man fiya saxul abi iman sama la dembona yàlla ñaanu Cheikh na Cheikh Saad boobu Cheikh na Cheikh Saad bu dal sunu kaw alhamdulillah الوسيلة Cheikh Cheikh Touré الحمد هو المدح وثناؤه كله لله خالقه ومالكه ومستحقه ولا يستحقه في الحقيقة إلا هو الله جل جلاله الحمد لله على الوسيلة ما وسيلة ما alquran ya maxul jali Cheikh na Cheikh Tourade nee na sunu wërsëg mooy wërsëg wi gën a màgg ci wërsëg ñu ne ko mooy ban wërsëg suma ala wasila fil mutari Cheikh na Cheikh Tourade nee na yàlla may nañu wasila wasila yi mooy kan salaatu rabbina wasila turi julli gi ni julli ci moom ak sëlmal gi ni sëlmal ci moom moo dindi sunu njàqare waxe ana wasilati adawa Cheikh na Cheikh Tourade ne Cheikh na Cheikh Tourade ne maa ngi ñaan sama barke wasila ñu ne ko sa wasila mooy bi ali kulli arabin a Cheikh na Cheikh Touré nee na maa ngi ñaan lu góor lay am lu nit ku baax de am ma am ko ci barke turu Cheikh na Cheikh Sarr wasilati cheikh na cheikh Touré sama sëriñ mooy seen sëriñ mooy sëriñu sëriñ ci mooy cheikh na cheikh sax. cheikh na cheikh Saadul Abi. cheikh na cheikh cheikh Saadul Abi. cheikh na cheikh cheikh Saadul Abi. cheikh na cheikh Saad. cheikh Saadul Abi. cheikh na cheikh Saad. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh al Khalifa. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh al Abrar. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh al Bouna. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh Malaye. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh al Abrar. cheikh Saadul Abi. bàyyi cheikh al Ma. cheikh Saadul Abi. cheikh na cheikh Saad. man sama. samaawaati wal ard Cheikh na Cheikh Saad Bou mooy ki mat mooy ki kawe mooy ki egg ci yàlla asalu bi sinihi saada Cheikh na Cheikh Turaat ne yàlla maa ngi lay ñaan sin gi nekk turu Cheikh na Cheikh Saad Bou saada mooy texe àdduna ak texe yow man wal ibada Cheikh na Cheikh Turaat ne yàlla maa ngi lay ñaan ayn gi nekk turu Cheikh na Cheikh Saad Bou xam-xam ak jaamu yàlla amiin Cheikh na Cheikh Touré ne yàlla maa ngi lay ñaan dal gi nekk turu Cheikh na Cheikh Sarr bu jege yàlla ak diine ju dëgër. wa baaxi awal biral amiin Cheikh na Cheikh Touré nee na yàlla maa ngi lay ñaan baa gi nekk turu Cheikh na Cheikh Sarr bu baax ak topp sama ñaari waajur man Cheikh Touré. su ma bii waa wii lu suula wal widaa ay waay inna bilada sabqata laha inna bilada sabqata laha turaabu summa biwaami wusula walbida dakar mursara ismi ishna turab summa biwaami wusula walbida summa biwaami wusula walbida sama seex turan ne waaw gi nekk turu seen seex saat bu man ci ñaan egg ci yàlla ak am cër ci yàlla yàlla maa ngi lay a way gi nekk turu a Cheikh Sarr bu yàlla nu yàlla teg ci yoonu njub rabbi xina mina nara isintasi yow yàlla dëgëral nu mooy sunu ngànnaay mooy sunu galaaj yàlla yàlla nu aar rabbi bi aar fam na nara yàlla man Cheikh Tourane maa lay ñaan ci barke turu Cheikh la Cheikh Samb yàlla nga nangu sunuy ñaan. wasalima ala nabi salaana. inna bilada sabxata laha turadun Dakar Moussara is fiihi Cheikh Tourane. wasala dara ibi ni ma nay naan. rawa ma amnahu fi العين. مسجدكم أضيافكم إياكما. مثل حبل يا حسام دمس بكلمتين ما أحمر في العينين وسيلتي يقص يوقي زحنا سعد حبيب سنا وكملا ñoom ñëpp. Cheikh Talib ne kuy waykat nga péloog man ñu joxe Cheikh na Cheikh Sall. jaay jógal per am ma jógal na waykat yi ñëw ñu per loo waaye Sadio sa maama dàq lem lem ci génn yi rek lay dem neex boo ko defee ci bët la nga def ko ci bakkan na Cheikh Saad bu ngay dégg muy neex ñu koy wax muy neex ñu la koy waxtaanal muy neex nga koy gis muy neex di gis photo muy neex sa maam na Cheikh Saad ومنار الهدى وشمس الزمان اه داي جاب داي لا فكر جنار شيخ امو بلا ترى جنار عبد بسم الله صح صح أزماني ذكر لله أرش باللسان الأمام لقنا ما لقنا ما قتلنا ما ما حدا ما يدق ما لا إله إلا الله محمد رسول الله أرشد اللسان ما يوق لا إله إلا الله محمد رسول soo bëggee ridwaan xam nga nan ngay def fala zamana zikru bil lisaani cheikh na cheikh san mu am na àddina bu ñu wax ridwaan soo ca bëggee dugg da ngay wax laa ilaha illa laa ci salaam bi cheikh na ne boo déggee ridwaan irfaan ngay dugg soo bëggee dugg irfaan looy zikkar fala zamana zikru bil soo bëggee irfan da ngay wax laa ilaha illallah ci say ci waaw ah, na ko ñëpp wax سورة المزار Cause I'm عبدنا يا الله بممبولي في طريقة الشيخ عبد الخالق جيلاني حمدا لمن على الهدى هذا صبا إلى طريقة الجيلاني ويقول إليكم شبيك شيخنا كسورة شيخنا الفاضل شيخ محمد الفاضل أنا صبا الشيخ الشيخ محمد الفاضل وصبا الشيخ محمد الفاضل وخير دول دخلوا ما قدروا سلامه شيخ الشيوخ ممثلي شيخنا الفقير الفادي المفضل سلام سلاما طازا بالحب والمنى من الله وخطاز مقامة الخبل وخم وشم شم من من شيخنا وهو من أمين وشيخه معني وهو معصم هذا الرحمن خاتم Bravo. damay def gàmm yàlla wér ak gudd fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee yàlla nañ ko teewe ay ati ati at ci barke yonent bi sallallahu wa sallam nee mi ngi may gërëm man bu baax nee mi ngi gërëm rakkam yi fi nekk yëpp nee na nga xam ne def nañ seen doole ci gàmm gi xam nañ leen ci goor ni ak jigen ni ak ci xalé yi ak ci mag ak ni nga xamne tew nañu ak fu way mëna joggé néna nañu lool néna fa tabarakallah néna mi ngi di ki nga xamni moy préfet Dagana Cheikh Ibrahima Khalil nee na dafay retetewaat rek nee na ñëw na fi ci turu taalibe ak doom nee na nekkal na fi kanamu gouvernement Sénégal ci njiitalu président Macky Sall nee mi ngi koy gërëm bu baax ci côté taalibeem ak li muy doon doom ci kër gi nee mu ngi yóbbante tamit ngërëm gouvernement Sénégal ak président bay gouvernement nga xam ne jàpp nañ ci gàmmu gi bari nañ lool lool rawatina nag mouvement bi mi ngi bu baax Cheikh Cheikh Mansour Dieng nee na magam la léppam la nee na gërëm ñëpp nee tey nee na ministre de l'élevage moo yenn ak moom daaj waaw nee na di xaritam di léppam bu ma duggee nee na fi la fanaan démb yendu fi tey nee teraanga bu nekk def na ko ci gàmmu gi yàlla na ko yàlla aar yàlla defal ko li mu bëgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nuyu baax Seex Ibrahima Xalil ko gërëm bu baax nee na jóge Dagana ba fii nee na loolu rëy la ci moom nee na mi ngi koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a egg ci état bi yàlla nga egg foofu nee yàlla mën na ko te yàlla mën na ko def nee na yàlla na la yàlla aar nee na mi ngi gërëm képp koo xam ni Chérif Bahayda xam na la gërëm na la sant na la nee na ndax xam ko rek xam Chérif Ba Aïdara nee na loolu ngërëm la nee kon képp ku fi taxaw rek gërëm nañ ko nee mu gërëm doomam yi nag nee na du leen gërëm ndax seen ay doomam ngeen nee na ki toog ci loxo ndeygaanam nee na doomam la di chimique nee kay toog di Cheikh Mouhamed Vadal doomam la nee na kii toog nii Cheikh Adra la nee na doomam ñi fi nekkoon sànq ay rakkam lañ nee ñi fi nekkoon sànq nee ay magam lañ ku mel ni Cheikh Mahfou ak Cheikh la doomu Cheikh Al Hadra la ay magam lañ ay kilifaam lañ nee na fu baax ci xalifa bu mag bi. di xalifa Cheikh la Cheikh Sarr nee na li tax ñu wax xalifa bu mag bi nag nee na ndax xalifa yu ndaw yi dañoo bëri nee na loolu moo tax mu wax loolu nee na bu jógee ci xalifa bu mag bi ci Cheikh Sarr de doomu Cheikh Mouhamed Taqiyullah doomu Cheikh al Khalifa doomu Cheikh la Cheikh Sarr nee na mu indaale teraanga bu rëy. indaale ñaan bu rëy ci moom nee fa tabaarakallah nee loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax nee na mi ngi sant bu baax waa kër Cheikh Makhtar Sall ci njiitalu seen xalifa Cheikh Ma sal nee na kër ga la yenn te nee na ngi fi ba léegi nee na ñi koy félicité bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla gudd fan nee mi ngi gërëm di sant Cheikh Daouda Djimbira nee na ñëw na fi sànq nee mi ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér mi ngi ñaanal ñëpp nee na daal mi ngi ñaanal ñëpp xorom sedd la mi ngi ñaanal ñëpp gërëm Abdou Ndiaye nee na mu woo mun ko maa ngi ñëw. mën mbay àll nee na bàyyiwul kenn nee li muy wax nii dañoo am président mouvement nee boo xam ne mooy suñu président ñun ñëpp muy Cheikh Sadou Gueye muy suñu président ñun ñëpp ndax képp ku baxee ne jiital rek man ak moom ci ginnaawam la ñuy topp nee na ñu koy gërëm bu baax. nee na lépp mu wax ci turu Cheikh Sadou Gueye la ak mouvement bi yëpp nee na yal na leen yàlla aar lépp lu ñu nar am ci lu baax yal nañ ko bokk ak yéen ci barke Cheikh la Cheikh Sadou ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gërëm na ñëpp nee na bu du bàyyi mukk waa këram yi waa Mbowar nee na boo tuddee tur yi. da ngay juum ñoom ñëpp ngi ci ginnaaw nee na soxna yaa ci kanamu ci ak côté gauche ak droite seen alal yëpp mu indi ko indi seeni oto nee baas bi yëpp nee na ñoo ak mouvement bi ak soppeem yu baax yi ak yu dëggu yi yi xam ni duñu paaka ñaari boor nee na yal na leen yàlla aar ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ngeen tàllal loxo nee na du fàtte Cheikh Adrame doomu Cheikh Al Alwuli bo Cheikh Atxaana doomu Cheikh la Cheikh Saad nee na magu xiisa bii la nee na moo sol grand boobu bi nee na kee toog nee na rakkam la Mouhamed Sall waa nee na xam nañ ko ñun ñëpp nee na waa Kébémer yëpp xam nañ Mouhamed Sarr nee na yàlla ko yàlla aar incha allah nee na mu ngi gërëm wax Cheikh Dabo nee na suñu magu taalibi la mam góor Fall nee na bàyyiwul kenn nee na yal na leen yàlla aar nee na ngeen tàllal loxo yi. <laughs>